aleykum nuyoo ziar li may gis nag ci yoonu sëriñ sëñ bi di yoonu murit dañ ko war a teel a arrêté moo gën balaa jur musiba gis nga 4-4 boo ko bëggee baa xaalis da koy liggéey dafa bëri nag léegi sëriñ si nekk ci yoon wi di dundee yoon wi sonal taalibe yi sonle te xamuñu baasin mi mara loolu nag dañ cee war a wax euh, soxna Aida Diallo ci li mu nekk nii loolu mbàkke mbàkke yee ci war a wax ndax nag borom yoon wi dafa ñag yoonam muy Cheikh Ahmadul Xadim li mu wax dafa leer santale leen ma yàlla waaye nag dafa bàyyi woon ay soxna sëñ Fallou bàyyi woon na fi ay soxna sëriñ Saliou bàyyi woon na fi ay soxna euh, sëñ Abdou Lahad borom Touba Belel bàyyi woon na fi ay soxna soxna am na ñoo xam ne xamuñ sax seeni soxna xamuñ leen te ñoo ñooy doomi sëriñ Touba yi yow nga ne danoo seexaloon sama borom kër sa borom kër daa wàcc doomam ne fi muy sëriñ Saliou Thioune boo bañoon a xàjjale baa nga bañ tas baa nga bañ yàq da ngay jëfee ndigal tey bàyyi tere topp ci ginnaaw njaboot gi loo am jox leen ñu ñu ñu def ci yoon wi waaye toog ci futey teg sa teg sa maanaam ko greffage xeesal ba weex ah ay góor raam naan alamtu na fi ñoo ñu seen bàyyi bi leen jur leen yàpp seen bàyyi dem jébbalu woon si seen bàyyi sax a gën foofu di ñëw ci soxna Aida Diallo di raam naan alamtu na fi jébbal naa la sama ruu àddina ak alaxira loo ma digal ma def loo ma bàyyi yéen seet leen yàlla te ngeen réglé nit day dox doxu maanaam dëgg lislaam gii mënu leen ko